mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan ñu fàtte li ne ñu ngi ci ñu ngi fii ci mairie bu Thiès euh, mu nekk bis bi nga xamante ni mooy bis bi ñu lancé plateforme de l'innovation pour l'emploi des jeunes ñu ngi nekk ak ki ñu naan monsieur Ibrahima Seck euh, bokk ci comité conseil stratégique nekk conseiller stratégique donc bu plateforme bi euh, lëkkaloog ñaari organe bi nga xamante ne mooy réseau des association de développement ak GARI groupement des retraités de l'IPRES Ibrahima Seck ñu ngi lay nuyu di la dalal. maaleykum salaam ñu nit ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci lii ngeen ñu may ñu mën a wax tey li nga xamante ne moo fi xew ne tey jii dañoo tase fii nii ci mairie Thiès waaye li ñu fi indi li ñu fi soxal. mooy nu ñuy mën a def ay pexe ba ndaw yi nga xamante ne ñooy ndawal Sénégal mën a am xëy mën a am liggéey dem ba taxawal ay xeetu liggéey yoo xamante ne ñoom dañuy jël yeneen i nit ñu ciy liggéey waaye liggéey yooyu mën a am njëriñ mën a am jeexatal mën a am loo xamante ne ëllëg ñoom dañ ciy mën a suturlawu seen njaboot suturlawu ci ñeneen suturlawu ci waaye ñu fexe ba nga xamante ne bokk ci li nga xamante ne mooy suqali Sénégal jëmale ko ci kanam ndax ñun li ñu seetlu nguur gi na ki nga xamante ne moom mooy président de la république am na yéene bu baax ci ndaw yi am xëy ñun nag dañu gis ne mu wax loolu rek ñun doy na li ci des nag ñun kenn ku ne war naa seet yan pexe yan anam nan la mën a def ak ci li nga xamante ne moom loolu lay liggéey ak te li nga xam ne la ko jege nu mu mën a def ba wax boobu noonu nekk loo xamante ne dafay mën a nekk. loolu nag moo ñu yëkkati tey ñu fexe ba nga xamante ne ndaw boo xamante ne am nga xalaat loo xamante ne bëgg nga koo def ñun doy na xalaat boobu rek doy na boo ñëwee ñu ne ñooñ ndaw yooyu daje ñi nga xamante ñooy nguur gi daje. ñi nga xamante ñoom lëkkul ñi ngi euh, lu mel ni ay ñoo xam ne ay jàmbur la yàlla luy liggéey waaye nag loo xamante ne day jëmale réew mi kanam ñëpp àndandoor bokkandoor waaye benn mébét lañ am mooy ndaw yi am liggéey liggéey bu sax dàkk boo xamante ne dafay jëriñ Sénégal. loola nag ñun moo ñu yëkkati nga xamante ne loolu bu ñu ko defee kenn koo xamante ne ndaw lu am loo xamante ne mébét nga ko yow bëgg koo def ñun dañ la jàppale. tëggal la mébét yooyu nga xamante ne moom la ñu li ñuy wax projet ci nasaraan léegi fexe ba nga xamee ne wan la bunt yi nga xamante ne tey ji taxaw na mu nekk ci nguur gi ñoo xamante ne yore nañ ay xaalis di ko euh, leble wala ñu koy joxe mooy ci ci euh, ministère yi nga xam yëpp muy ministère de la jeunesse ministère environnement ministère yu jigéen yi wala yeneen ministère wala boog ci banque yi nga xamante ne ñu ngi fi taxaw wala boog ñoo xamante ne ah, lu mel ni mutuelle yi leble xaalis wala boog ñoo xam ne sax léegi naataango Sénégal yi koy jàppale muy ay bailleurs de fonds yoo xam dañ koy jàppale. lépp nag ci kaw nu ñuy mën a fexee ba ndawal Sénégal ku ci bëgg a def dara ak loo mënta def muy ngay def menuisier muy ngay def mécanicien muy ngay def mbay. muy ngay def euh, euh, euh, restaurant ak loo mën a def ñu taxaw la jàppale la ba nga xamante ne loolu alal ja ca war nga ko am ba mu doy nga taxawal léegi liggéey jëriñu jëriñ sa njaboot jëriñ say ñooñ jëriñ Sénégal loolu moo ñu fi taxawaloon ngeen baal ñu àq wasalaam. Ibrahima Seck eh, bàyyeeguñu la parce que am na ay laaj yu ñu lay laaj gis nañu ne tey ci seen présentation journée bi bokk na ci li ngeen gën a fësal mooy delloo jeunes yi ci maanaam ay projet yi nga xam ne ci wàllu bay la wàllu élevage yu demee noonu est-ce que tey ci anam yu mel noonu rek ngeen mën a wuyu jeunes yi ci wàllu projet walla ubbi ngeen aussi seeni bunt pour ñi nga xamante ni bëgg nañu yëngu ci yeneen domaine waaw dëgg la mbay mi nekk na loo xamante ne lu ñu soxal ndax gis nañ ne réew mu mu dem rek dafa sukk sukkandiku ci mbayam ndax mbay mooy tax ba nga xamante ne ñu am dund gu doy dootuñ ko jëggaani ñaareel bi mooy léegi li ñu soxla ci dund ñun ñu mun di ko am ci suñu réew loolu mooy fexe ba nga xamante ne ñaari mbir sécurité alimentaire ak souveraineté alimentaire ci nasaraan.